jërë ngeen jëf internetu Buzz SN yéen ñi safoo di seetaan suñu bi da leen ak jàmm jour te nag ñu door seen actu du jour ak kii di Kouthia Kouthia ginnaaw bi nga xamante ne ñu rek woon na fële ca TFM mu mel ni ne na wax na rek day dellu si waat foofee ca TFM ba joxe rendez-vous ak fansam yi ak téléspectateurs yi ne leen ñu xaar ko rek ci Kouthia show bi nga xamante ne nii rek mi ngi ko fa doon def foofee ca TFM waaye nag mo mi di rek nee na la ko toxoon a jóge foofee ca TFM mooy rek oustaz yi nga xa ne nii rek nekk foofee ca TFM nañuy doxalee rek ku ko neexul moo taxoon rek mu jóge foofee ca TFM ca rek nee na moom di Kouthia mësul wax lu ñaaw waa TFM mësuleen yàq musiba ak mbelengaan en tout cas lépp lu mu munti wax rek da koo teg fu leer oustaz ya nañuy doxalee foofee ca TFM neexu ko loolee taxoon mu jóge woon foofee ca TFM ba daal di sax ubbi ab chaîne YouTube am rek daal di koy tuddee boppam daal di koy tuddee Kouthia TV ba joxe fan sami ne leen dee leen dem di mo ko ci sama chaîne YouTube boobee di Kouthia TV moom i di Kouthia jamono ji def na ab woo waxeet rek ndax nag rek dellu na foofee ca TFM wax Adamo Boss de Negri nekk koo xamante ne ni rek daal dinañu ko yor ràññee lool ci Willy Pandé yi nga xamante ne ni ko doon def di Willy jigéen ñi di génne seeni awra di def ji mu mel ni ne dellu na ginnaaw dem na ca góor jigéen ñi jamono ji rek ma ngay xeex góor jigéen yi ba tax sax góor jigéen boobee di jaba sira sax jamono ji ma ngay dal ca kaw kii di Adamo ndax nag jamono ji Adamo uh, mayu ko dara waaye nag Adamo rek ma ngay xam ne ni képp koo xamante ne nii rek yaa ngi xeexal nga ñëw jàppale ma si bi waaye nag képp koo xamante ne nii rek da nga may attaqué soit mu nekk góor kon nag góor jigéen nga uh, soit mu nekkee jigéen rek lesbienne nga waaye ñoom ñëpp dinaa leen jàpp wilipande leen moom mii di Adamo boss des négri uh, a bi nga xamante nii rek bàyyi na loo motif yooyee mu doon def jamono ji nag ma nga foofe ca góor jigéen ñi jamono ji nag ma ngay fas yéene xeex borom ñaari tur yi moom mi di Adamo Boss des Negri bu géejëwaay bi di Ahmed Aidara Ahmed Aidara ji mel ni nouvelle dara ci kawam rek chroniqueur bi rek di Siré Sy nee na rek day porter plainte meeru géejëwaay bi di Ahmed Aidara ndax nag Siré Sy mi rek la moo xam leen nee na Ahmed Aidara dafa yëkkati ay kàddu yu ñaaw maanaam ay saaga rek ak ay menace de mort daal di koy tekk ci ndodd chroniqueur bi di Siré Sy tax nag Siré si rek daal di koy euh, porter plainte ngir moom mi di Ahmed Aïdara ñu ñu dem si yoon ñoom ñaar waaye nag Siré si tamit sax ma ngay wax ni commentaire bi nga xamante ni rek def na ko ci assemblée nationale la gouvernement bu bees bi nga ni rek de na ko commentaire na ko sax ci naka noonee nag loolee ko Ahmed Aïdara daal mere ba tax sax mu daal di koy euh, porter ba tax sax mu daal di euh, saaga di wax wax ñaaw loolee tax nag Siré mi di porter plainte moom mi di meeru Géejawaay bii di Ahmed Aidara waaye nag Siré si rek yamul foofee ndax nag ku ne xam na ni rek dee liggéeyal Macky Sall te nag kii di Ahmed Aidara rek dee liggéeyal Macky Sall kon nag Ahmed Aidara nañu jàpp ni dee liggéeyal Macky Sall ndax nag seetlu nañu foofe ca assemblée nationale mu mel ni ne moom mi di meeru Géejawaay bi di Ahmed Aidara dafa war waa Yewwi Askan Wi te nag nee nañ waa moom mii di Ahmed Aidara bu nekkee meeru Géejawaay tey waa Yewwi Askan Wi ñoo tax kon nag bu ñu demee foofee ci assemblée nationale ba mu ne bëgg a nekk candidat loolu day bëgg a euh, doy waar mu mel ni ne rek nekkatuñ benn loolee tax na ñu bëri daal di ko siy mere ba tax sax ñu ne kii di Ahmed Aydara woorkat la loolee tax nag kii nii di siri si rek daal di siy def commentaire loolee nag métti kii di Ahmed Aydara ba mu yëkkati ay kàddu yu ñaaw teg ko ci siri si ba tax sax di ko menacé de mort loolee tax nag siri si euh, daal di koy euh, porter plainte moo tax nag jamono ji dina tàng jër seen diggante moom ak siri si ak kii di Ahmed Aydara ndax rek kii di Ahmed Aydara rek la mu def du yoon warul saaga jàmbur ba tax sax dem ba koy menacé de mort animateur bi di Pape Cheikh Diallo nekk foofee ca Télé TFM ginnaaw bi nga xamante ne nii rek ñu nga ko gis mu ànd ak ab garde kooram ci otoom rek mu xam ne rek nee na kenn du ko agressé kenn du ko prank ndax nag gis na xaritam bi di Viviane Chidid comme nañu ko pranké kii rek di def prank yi ku ne xam na ni Mahfouz mooy def prank yi loolee tax nag mu daan ne kii di Mahfouz du ko prank waaye nag tamit kenn du ko agressé ndax nag ab garde kooram rek lay yóbbu maanaam kenn du ko yablu kenn du ko prank kenn du ko agressé mu mel ne nag moom it di Pape Cheikh rek jamono ji ma ngay sóoraale kii di Mahfouz borom prank yi ak agresseur yi nga xamante ne nii rek jamono ji eh, ñi ngi ci réew mi kon nag moom idi di Pape Cheikh Diallo jamono ji rek ma ngay bàyyi xel max Mahfouz ak ñi nga xamante ne nii rek eh, ñoo di agresseurs yi loole tax nag mu daal di wut ak garde corps am daal di koy teg ci wetam ngir mu aar ko saf nga sàpp ak alxayri ku ñu ko wax nag moo di Ndeye Ndack Touré ginnaaw bi nga xamante ne nii rek xaritam boobee ma nga ko doon filmer di def ab benn vidéo ak moom xaritam boobee rek ma ko koy wax saf nga sàpp ak heure ménage loolee tax nag kii di Ndeye Ndack di ko tontu ci vidéo boobee naa ko nag sama heure ménage man kenn du ko yëg surprise lay nekk te secret lay nekk sama heure ménage moom kenn du ko attan moom mi di Ndeye Ndack mu mel ne mariage ndax nag moom mi di Ndeye nekk at animatrice la foofu ci 2STV ah, déggaguñu ko boobee ba léegi ñu ne marié wu na waaye nag ña nga koy tooñ rek ni ko saf nga sàpp ak àll xayri ginnaaw bi nga xamante ne nii rek ah, daal di nay def ab mi nga xamante ne nii rek moo di ah, ndey ndaak ba ñu ko ràññee ci 2STV bi ak màggal Tuuba bi rek passé ràññee na ko fa kon nag moom mi di ndey ndaak mu mel ne rek ma ngay waajal coupe mariage ci surprise bi nga xamante nii rek kii di Viviane Chidid defal na ko doomam bii di Zeyna Ndour euh, ginnaaw bi nga xamante ne nii rek Zeyna Ndour da doon fête di anniversaire am rek defal na ko euh, surprise ci ñoom ñaar ni ne nag moom it di Zeyna Ndour rek kontaan na ko waaye nag kii di Pape rek euh, ma ngay tooñ kii di Viviane Chidid rek jamono ji moom sa doom ji màgg sa doom ji moom jamono ji moom gars yi nañ si teg loxo mu mel ne nag ma ngay tooñ Viviane Chidid ba tax sax kii di Viviane Chidid ma ngay mel ni kuy jëfru ginnaaw bi nga xamante ne nii rek kii di Pape Cheikh Diallo yëkkati na kàddu yooyu teg ko ci doomam bii di Zeyna Ndour nekk koo xamante ne nii rek ràññee nañu ko lool ci réseau social bi moom mi di Zeyna Ndour di doom ci Viviane Chidid ak kii di Bouba Ndour nekk foofee ca TFM wax ci mbër mi di Boucher Ketchup mën nañu wax sax ab influenceur ndax nag feeñ na trop ci bi bi surtout ci réseau social bii nii di TikTok moom mi rek di boucher këccëb ginnaaw bi nga xamante ni rek jënd nañu ci màggal gi ba pare sax nekkoon ku ñu ràññee loolu ci màggal gi ca naka noonee ba màggal gi jeexe nag gis nañu ko rek mu ànd ak njabootam ak jabaram ba tax sax mu amul benn vidéo rek di wax ni yenn yéen ba xaalis yi na ngeen ànd ak seen i jabar yi wala sax boo leen aisé rek jërul am xaalis bëri mun ngeen di jënd ak seen i jabar yi ak seen i njaboot dund lu neex yóbbu leen bitim réew ndax nag loolu rek nekk na lu baax noonu la ko defee comme na mu ko waxee rek ànd ak jabaram foofu ci aéroport bi rek la defee vidéo boobe di wane rek ma nga ci aéroport bi di dem foofu ca France Paris ngir feetu moom ak jabaram ginnaaw bi nga xamante ne ni rek nee na comme na ko ñëpp di def ndax rek loolu dafa nekk lu am solo ginnaaw boo xamante ne ni rek mun nga ànd ak sa jabar dund ak moom lu neex dem vacances loolu nag nekk na lu am solo ci couple kon nag na koy def ak seen i ci couple waaye nag jeexalee ko ak mbiru taggat yaram ginnaaw bi nga xamante ne nii rek kii di Keita Balde euh, dafa euh, romb sart yi nga xamante ni rek moom di moo di anti dopage moom mi rek di Keita Balde loolee tax nag ñu daal di koy forfait ci équipe nationale bu Sénégal loolee tax nag kii di Habib ci équipe nationale bu Sénégal ngir rek mu ñëw remplacer ki nga xamante ne nii rek moo di Keita Balde ginnaaw bi nga xamante ne nii rek daal di nañu koy forfait ci anti dopage bi kon nag moom mi Keita Baldé du mën a football loolee tax nag kii di Habib Diallo rek ñu daal di koy woo mu remplacer ki nga xamante rek euh, ji kii di El Ñanco Sadio Mané la muy dund foofee ci clubam bu Bayern mu nekk mel ni ne sax dafa xaw a metti ba léegi seen club bi mën a gul gagné foofee ca Bundesliga ba ñaari match ngi mën a koo gagné waaye nag Sadio Mané mel ni ne nag dafa bi ndax nag cinquième boo xamante ne kon nag kii di Sadio gëj na dugal bi loolee tax nag ña ngay samp laaj ci jamono ji nag waa Bayern Munich dañoo nekk si ay problème ndax nag kii di Sadio Mané sax nee nañ remplaçant bi nga xamante ne ni rek def nañu ko daal di koy euh, jënd daal di bàyyi fukkeen di lawaan Lewandowski mel ne loolu amul solo ndax na kii di euh, Sadio Mané mënagul na amal njëriñ foofee si seen équipe bi ñi di yar Bayern Munich